asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ bi ñu ngi lay ziar di la ndokkeel bu baax ci weer wu tedd wi di la ziar itam ci bés bi nga xam ni ñu ngi koy waajal muy bés boo xam ni ni ma ko waxee bërki démb ci télévision bi kenn du ko tudd te xel demul ci sa maam ju tedd ja di la ndokkeel itam bu baax a baax ci taxawaay bi muy biir réew mi ak bitim réew ba ci liggéey bu rafet bi nga xam ni def ngeen ko ci ren ji di wax nag ci turu ki nga xam ni yaa ngi koy ci léegi muy président Youssou Ndour ki jiite délégation bi mooy Alioune Badara Fall mi ngi ànd ak itam ki nga xam ni mooy directeur programme Bouba Ndour sa soppe bi moom it ñëw na di sëñ Samba Sine Daawda Juuf itam mi ngi nii feggoog man mbooloo mi ni mën la doon nuyoo léeg ñoom léegi rek xat na duñu ñu mën a tudd ñëpp waaye bu tuddee ñenn ñi rek ñi ci des daañu dégg seen tur ci biir waaye kër gi daal nin la ko daan leerale saa suñ fi ñëwee kër la goo xam ni ni ko borom tuddee rek noonu la fas yéene doxe muy seetu askan wi fexe ba li nga xam ni mooy askanu Sénégal lii seen bëgg-bëgg kër gi di ci xëy di ci gont rawatina nag li nga xam ne amuñu lu dul moom muy diine ji diine ji saa yu taxawee seetuñu ci bërëb sàngam wala bërëb sàngam bu diine taxawee rek bu soxlaa rek dañu daal di ni lépp luñ jàppoon nañ ko bàyyi te defal ñooñ diine li nga xam ni moom lañ bëgg noonu la borom kër gi loolu lay digle saa su nekk ñi nga xam ni ñoom la teg liggéey bi seen loxo itam ci loolu la ñuy dox saa su nekk ba looloo waral lii Alaaji Abdou doon leeral léegi maam Fama di sunu mag di sunu xarit ni mu ko waxee samay sëriñ ñoo ñoo jàpp sama loxo jàpp ci loxoom waaye moom it ay sëriñam jàpp ci loxoom jàpp sama loxo boole nu waaw ndax nii mu ko leerale léegi noonu la ko sëñ Moussa mu sëñ Abdou Khadir defee woon Cheikh Bass moom sëñ Abdou Khadir kazalika naka noonu ba ci sëñ Cheikh noonu itam la ko sa mag ju tedd ji nga xam ni moom nga wutu noonu la ko defee woon itam muy sëñ Abdoul Aziz Al Amin moom it boole nu ni nu digal naa leen ngeen boole seen bopp àndandoo liggéey boobaak léegi itam ma topp ci gannaawam liggéey bi rafet lool noonu la taxawee ci kër gi itam uuf ñu ñun ñëpp di santaat bu baax ci teew gi nga xam ni teewe nañ ko ci bés bi nga xam ni sa waajur wu tedd wa dafa daan wax naan yamale ka ak bés bi ko jiitu wala bés bi ci topp dara jaru ko ci jullit sa waajur wu wa sëñ Saliou nee na ganek àddina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yamale ka ak bés bi ko jiitu wala bés ba ca topp nee na dara jaru ko ci jullit waaw loolu nag la Seydi El Hadji Malick xamoon ba daan ko waajal daan ko teeru daan ko gàttandu burdu bi nga xam ni ba mu tàmbalee ba tey àddina bi yëpp ñi ngi yëg ñi ngi waajal guddi gi nga xam ni bu amul woon dara du ko jar ci ñun kon nag ñi ngi dollee santaat bu baax ci teew gi nga xam ni teew nañ ko ni ko sëñ du waxee rek groupe bi daal amuñu lu dul yéen mangi fatlikou at mi mu juddoo yàggul tuuti rek muy télévision bi ni ñu togué lañu togué won ak président Youssou Ndour ci bopam lamu wax ak yow itam boba ak légui mom jogul ci lool ndax lepp lo xam dafa jëm ci walu diiné dafa naan bu ngeen mënul weesu la ngeen ca defoon fexe leen ba la ngeen defoon daaw bu ca dara manké lool lañuy diggal sa su nek mom lañu ñu sunu directeur télévision di wax muy Ndiaga Ndour loolu la sunu directeur observateur bi di wax muy Alioune Badara non lañu la sunu directeur euh, radio di wax tey jii di sa waa kër muy El Hadj Assane Gueye noonu la kii nga xam ni itam mooy daaw de Mine mi nga xam ni mooy IGFM moom it ñoom ñëpp noonu la ñuy doxee ndax loolu mooy bëgg-bëggu président yu sundur ci loolu lay doxee te dafa dëggu ci lu wér la ci moom ndax bu wérul woon ñi ngi yaakaar naa ni gàmmu gi mooy sunu fukkeeli at télévision bi di ñëw di ko couvrir kon loolu bu fekkoon du woon dëgg ci moom yaakaar naa ni nii ñu defee délégation tey bi nga xam lu jege juróom fukki nit. àndandoo nanu ñëw loolu yëpp ngir gën a wér gën a gën leen dénkaat sunu bopp gën leen xamalaat ni leen jumtukaay bi itam ci seen loxo la nekk te yéen la fa nekkal kon xam naa dañuy jox rek sëñ Alioune Badara mu yeggale kàddu yi moom mi jiite délégation bi.